nañ leen beneen L200 bi li muy dawal. pour L200 bi xool li muy dawal xool xool li muy dawal xool xool dawal lu xamante ni muy dawal xool xool yaa ngi gis waaw. voilà gis nga gis ngeen dawal bu xamante bii borom borom oto bi dawal moo indi problème bii. dawal bu xamante bii borom oto bi doon dawal moo indi problème bii dama gën a gën a dem balaa balaa balaa fee xam gën a dem. gën a dem fa la ñu dem gën a ji nii. dawal bu xamante bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bii kii moo indi accident bii xamante dawal bu xamante doon dawal ñu noonu. xool leen beneen L200 bi li muy daw xool L200 bi xool li muy dawalee xool xool li muy dawalee xool xool dawal bu xamante ni muy dawalee xool xool yaa ngi gis waaw ah. voilà gis nga. gis ngeen dawal bu xamadi bii borom borom oto bi dawal moo indi problème bii dawal bu xamadi bii borom oto bi doon dawal moo indi problème bii dama génn génn dem balaa balaa balaa feexat génn génnal ba fële génnal ba fële ñu dem génn ji nii dawal bu xamadi bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bii kii moo indi accident bii ah, xamadi ah. dawal bu xamadi doon dawal nii noonu

dawal bu xamante bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bii kii moo indi accident bii ah. xamante dawal bu xamante doon dawal ñu noonu. xool leen beneen L200 bi li muy dawal. xool L200 bi xool li muy dawal xool xool li muy dawal xool xool dawal bu xamante ni muy dawal xool xool yaa ngi gis ah. voilà gis nga. gis ngeen dawal bu di bii borom borom oto bi dawal moo indi problème bii dawal bu xamadi bii borom oto bi doon dawal moo indi problème bii dama génn génn dem balaa balaa balaa feexal génn dem génneel ba fële génneel ba fële ñu dem génn ji nii dawal bu xamadi bii muy dawal moo def lii mu def moo indi problème bii moo indi accident bii kii moo indi accident bii kii moo indi accident bii ah. xamadi dawal bu xamadi doon dawal nii noonu